jàppee ci diggante ASC Jaraaf ak stade de Mbour mun nañ ko xaarandi dimanche ñaar fukki fan ak juróom-ñaar fële ca stade maître Abdoulaye Wade bu Diamniadio final bu juróom-benneelu fukk ak ñetteelu édition bu coupe du Sénégal boobule ndaje ci trophée njiit réew mu Macky Sall mun nañ ci xaarandi ay surprise yu bëri. waaw ñun am nañu habitude euh, événement yu ñu mel ne waaye lépp dañ koy def rek ci jàmm ak ci salaam waaw sama nataangoo moom xam nga du yomb moom incha allah moom daañu def suñu fula ak fayda incha ko président comité bu ëmb comité organisation bi moom di xamle ne lépp yemb na soxal la boobu le ndaje Amadou Kane di woote ngir jàmm ak a xew fa. violence moom mënuñu egg à ce niveau de compétition di xalaat violence di ñaan yàlla nag jàmm am mais malgré tout avec les forces de sécurité am na ay dispositions xam ne jël nañ ko billets yi c'est à la portée de tout le monde billet 500. chaise rouge yi 500 la chaise jaune yi 1000 francs la donc def naa loolu euh, c'est à la portée de tout le monde quoi. mu di nag ponk bu am solo boo xamante ne. jëwriñ bu yor ma tàggat yaram moom itam taxaw na ci. li may wax ma ndax dinañ dimbali ñaari équipe yi parce que ñoom ñoo ci ëpp solo fi mu nekk nii muy stade de Mbour ak euh, Jaraaf. xam ne dañ leen dimbali pour que seen i supporters wala li mujj ci seen organisation ñu mën ko def ba nga xam ni ci ndigalu président dinañ jox équipe bu nekk. quinze millions supporters mais au-delà de ces deux équipes ñu ngi ñaan xale yëpp ñu ñëw pour ñu ñëw seetaan si ndaje bi ca njëlbeen toll woon nañ ci téeméeri équipe di jongante ñaari finaliste cote mujjee cee des Stade Mbour ak Jaraaf waaye autorité yi nag ba tax liñ ci namm bëri lool ba tax autorité yi di woote ci mobilisation bu yaa bu acteur yëpp